naan mouvement PAS may booloo ànd sukkaliku nekk ci réew mi juddoo fi ah di fi daan sama doole comme ñëpp doon ab taalibe taalibe bi jiite xam nga nit moom di la ziar yow euh, bas yow yow booy présenté sa bopp yow lan ngay wax ah, Tunkara comme ni ñu ko waxee rek xam nga nit moom Eh, ñu ne mënta wax ci boppam waa man Bassirou Ka laa tudd nekk promoteur immobilier nekk responsable politique APR commune Jean Paul ñàkk ñàkku rab jiite mouvement bu ñu naan mouvement BAS may booloo ànd sukkaliku nekk ci réew mi juddoo fi ah di fi daan sama doole comme ñëpp doon ab taalibe taalibe bi sëñ Béthio macha allah euh, sëñ Béthio kooku moom euh, bàyyi la si man di ko ñaanal suñ borom mu dolli ko yërmande mm. euh, Bas yow APR gi nga ne ban xeetu maanaam nan ngay liggéeyalee APR yow. ah waaw yaakaar naa ñun moom li ñuy li ñuy liggéey ci parti bi eh, ku dugg ci kii bi di nga ko gis ndax Basirou Ka moom yaakaar naa waxuma ñëpp xam nañ ma waaye ñi ci ëpp xam nañ ma te liñ ma xamee mooy jëf rek mooy jàppale sama askan ci li ma sama li ma yàlla may euh, ma yor ko muy li nga xam ne maa ko moomal sama bopp ma jàppale samay mbokk te ñooñu su ma leen jàppalee du politique sax dem leen jàppale ngir ay jaam lañu man may jaam mais léegi yow euh, tey APR yow fan ngay fan ngay liggéey fan ngay militer ci APR ban gox ci Tivaouane Peulh man maa ngi milité commune Tivaouane Niaga. kan mooy kilifa gi foofu ci APR. kilifa bi mooy euh, Mamar Sokhna jóob mooy sunu mair mais Papis Diop. Mhm. Papis di ko di ko ziar léegi euh, Bas yéen bon local yi Papis toogaat na mais législative yi dañ leen gañe. waaw xam nga ci xam nga Tivaouane Peulh euh, président Macky Sall li mu sasoon Mamar Sokhna Diop mooy sunu maire. Hmm. ci local yi. def na ko gagné na mais élection législative ñun nekkuñu woon moom nekkul woon candidat. Hmm. te ñun tamit suñu commune li ko wër amul benn koo xamante ne dugal nañ ko ci liste yi. Hmm. ah seen commune yëpp. ñun suñu commune amul kenn kuñ. ba léegi loolu loolu loolu baax est du seen sàggante yéen ñii tey nekk ay kilifa politique ngeen sàggan ba ñu defar liste yi te yéen dugg leen si. waa jéem nañu ba sonn waaye xam nga kilifa yi fa nekk ñeneen ñi nga xamante ne ñoo fa nekkal président ñoom bëgguñu ci ànd Hmm? dañuy xeex leader yi nekk Tivaouane. ban kilifa moo bañ. waaw mooy ministre yi nekk foofu. ministre yi nekk ci département bi waaw ñoom ñoom man du ma tudd seen tur sax parce que xam nga ñu lu yàqu foofu ñoom ñoo ko yàq. parce que soo xoolee tey nit ki boo njabootee ay nit ay askan li ñuy wax département da ngay yemale quoi da ngay xam nan ngay doxee dugg ak nit yi mais soo demoon laaj imaam yu fa nekk ak chef de village dinañ wax ban at lañ leen géej gis. mais Bass est-ce que lii tamit du problème ñooñ tamit nekk kilifa mais yow doo sax seen tur. mais loolu day wane ni que yéen APR seen xol yi àndul te doo leen xàccandoo doo leen dóorandoo. waaw suñ nekkee Benno Bokk Yaakaar ba pare Benno Bokk Yaakaar ñu moomale ko seen bopp tëj ko ci seen biir néeg yi ko ak seen i noonu lay demee parce que xam nga politique. Euh, dafa am loo xamante noonu la war a doxee gis nga nit ñi leader boo fol wala muy ministre wala conseil ak lu ku mu monta doon ci àdduna représenté kooku ñëpp la fi war a nekkal. Hmm. dafa a nekk nit koo xamante dafa am dafay ouvert jeunes yi di la gis mag yi di la gis. jigéen ñi di la gis ndax loolu mooy tax nga xam jàngoro zone bi. xam yéen ndaw ñi yéen kilifa yooyu yéen gis loo leen te yeggu leen si ñoom mu ñëw ñu si yéen. ñëw ñu si ñun gisuñu leen comme législative kay en tant que campagne. Hmm. gisoo ministre bi gisoo ki ñu defoon eh, ci liste yi gisoo mu dugg commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkkul ab campagne. commune Tivaouane Peulh kenn campagne fa. ñoom kenn yaa ngi fi bu dee am na nañ ko wone ci internet. yéen ñi rek yaa ngi fa campagne ñun ñii ñëw ñun campagne. Hmm? man damaa def caravane man ak sama nijaay El Hadj Ousseynou Dia yaakaar naa mën nañ ko wane si si ci télé bi ñu gis. jàppale ku leen financé loolu. ñoo finance suñu bopp. Hmm? ñoo finance suñu bopp parce que pour jàppale président Macky Sall. mais léegi euh, Bas euh, kon Tivaouane Peulh euh, foofu daal commune ba APR dafa dee. waa APR xam nga doole luñ ko foofu maire rek moo fa nekk te maire maire yi normal tant que maire mënul mënul régler Tivaouane Peulh. Hmm. ñun ay jeunes lañ fa am ay cadres. te tey eh, président dafa war a Michel maire dolel ko bu baax parce que fofu dañu nek commune bo xamné ni muy magat ni muy màggee dafa ëpp doole. Mhm. parce que tay so xolé gox yi fa nek ki suñu commune mo ëpp électorat. Mhm. té ay ñàkku rab ay ñàgg yoy ñoo mak Tivaouane Peulh ki mais. mais tay ni commune Tivaouane di yokkoo amul benn commune bu yokkoo non parce que dañuy am ay gan ay tawfex feex yaakaar ay tawfex feex bu Tivaouane Peulh nga waat waaw APIX si ñëw. Mhm. léegi ñu ngi ñëw defaat euh, découpage bu bees bi ñu jël euh, ñàkk rab boolewaat ko ci Tivaouane Peulh. Mhm. ñuy lancé waat président Macky Sall si découpage bi ñu def ci département de Kër Massar bi ñu dafa laalaale lu nga xamante ne mooy sunu sunu moomeel. ndax dañoo xool ne li gën a baax ci Tivaouane Peulh la ñu dagg boolewaat ko ci Kër Massar ñuy wax président Macky ngir yàlla président jàppale ñu si loolu delloo ñu loolu ndax ñun. Euh, li ñuy jot am ci ressource lu mu tuuti tuuti foo lañ koy jëlee. Hmm. ndax station yu bees yi nga xamante ne ñooy eh, niveau station duggu Tivaouane Peulh. Hmm. foofu lañ nekk. Hmm. tey ñu bëgg ko boole ci Kër Massar dañu gën a gàllankoor parce que mairie bi amatul doole. parce que mairie ci suuf la war a liggéey te côté yooyu yëpp dañ ko tiitaree depuis temps wat Wade. léegi euh, Bass tey yow li nga bëgg leeral li nga bëgg leer si bopp ñëpp lan la. waaw li mu bëgg leeral mooy président Macky mu gën a joxaat confiance ndaw yi ndax ndaw ñi ñoo yor réew mi. ndaw ñi ñoo am ay diplôme ndaw moo am doole ndaw moo mën a liggéey mais duñ jël ay paa yu màgget yoo xamante ne dugal ko ci palais bi ñoo xamante seen i doom dañuy saaga président ay alliés xam ne duñu défendre président ay ministres yoo xam ne dañuy daw askan bi ay ministres yoo xam ne bu bu bu opposition yuuxoo ñu dugg seen ronu lal ñooñu président Macky Sall bëggatuñu nit yi ñu fol nit yu mel noonu dañu war fol ay nit yoo xam ne dañu am xam-xam dañu mën a jaxasoo ak askan bi wax ndaw ñi xool jafe-jafe Sénégal li fi am nag muy ay métit ñuy jaale ñi si jot a ah, ñàkk seen eh, bakkan mooy ci ndox mi loolu xéewal bu ëpp la hmm. muy di doon ñaan yàlla def mu def na loolu président Macky sal def na si kémtu lay kattanam mais day mel ne li ku ci ay mètre bu ndox par par heure ci Sénégal musu fi am kenn ku ne xam nako hmm. lool nak nag dogal yàlla la mais dañ koy nangu mais buñ ko jël fétalé ko président mo def li gis nga euh, affaire assainissement mo nek lo xamné état mon na si def multimilliardaire mais ñi nek ci kaw hmm. diñ ko gis ndax lo xam diñ koy def ci souf kan moko mëna analyser kan mo mëna wahli wax li fi la nek bu tali la di nga gis pont bi hmm. mais bu dee loo xam diñ koy sul ci souf ci ci wax rek nga ko mën dégg soko waxé dañ nan amul mais ku xam Kër Massar xamné amna ay zones yu am jafe mais fii président demoon ba gaal yi nekkoon foofu mooy côté pénitence hmm. dëgg la am na ndox mais rew ren wàññeeku na gaal nekkatul côté boobu hmm. mais suñ defaatee yeneen kanaal mën na am affaire bi wàññeeku euh, dafa am lu bees lu am Sénégal mooy si wàllu politique euh, bu njëkkoon ñi doon politique dañu doon jàng politique xam politique